alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës kolos bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi.

Ablaye Ndogo leen nuyu ñëpp mënuma wax nag mais dañ may wax loo il faut ma wax <laughs> macha allah maa ngi nuyu sëriñ si di nuyu euh, directeur école bi El Hadj Omar di nuyu parents d'élèves yi di nuyu tataay ñu jàngale fii <laughs> merci donc maa ngi nuyu ñëpp daal ci tënk euh, man. parents d'élèves la madame Mbeng Adama Kanouté laa tudd maa ngi dëkk fii Samb ma yor fii élève sama chéri sama sët macha allah e man ak école bi safe plus de 17 ans euh, man ak El ak euh, institutrices yi ñi jàngale fii donc loolu yàgg na école bi éducation bu ñuy wax éducation de base vrai moom la ñuy jox xale fii parce que man xam naa ci dara parce que yàgg naa ak ñoom xale bu fi génn macha allah man sama caat bi rek elle a 21 ans fi mu toll nii fii la jaar ci école bi fi mu toll nii mu ngi licence 3 mu ngi def formation donc école bi du caaxaan yàgg na donc euh, mënuma wax mais ci tuuru parents d'élèves yi daal laa ne naa jël parole wax wax. rafetlu jotaay bi vraiment kontaan naa maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. mënuma wax daal sama xol bi moo fees parents d'élèves ah ñu ñuy indi seen élèves yi fii xale bu juddu ba am 3 ans nañ ko indi fii ci école bii man de ku ma xam képp lool laa lay diggal waa ñuy indi seen élèves yi fii ñu leen di éduquer macha allah bu ñu fi jógee dinañ kontaan xoola élèves yi li ñu fi wax rek macha allah xale yu ndaw di di wax wax yi ah ti vraiment ñii daal mënuñu leen fay inti ñii jàngale fii xale mënuñu leen fay dañ leen di bàyyi ak yàlla vraiment. kontaan naa daal man dama munta wax <laughs> ah lu ma leen dénk ah ñu góorgóorlu rek jàng bu baax macha allah ñu yàlla may ñu fekkee may ñu wér ñu fekkee lépp rek waaw ah, wax ji daal laa munul <laughs> baal leen ma àq suñu sang bu tedd ba moom Mawlana Cheikh Ibrahima ñaan na fii kon lu ñu fi ñaan rek am nañ mun yaakaar ne lépp luñ fi jàng rek suñu borom dina ci def barke bu baax a baax kon ngeen xam ne garderie bi aussi nekkul ne ku nekk moo fi nekk wala ku xëy toog këram ñàkk liggéey la alaaji paqueté indi ko fii ne la kaay jàngale déedéet ñi fi nekk nii ay monitrice de collectivité éducative lañ ñu def seen formation am seen diplôme ci lii la ñuy dund lii lañ xam ci la ñuy liggéey gis sa buñ tëjee fii ba jébbal seeni doom dañuy jël doom doomu ñeneen. ànd ak ñoom dem ay colonie de vacances ay camp de moo xam ci biir réew mi la wala bitim réew la yàlla xéewalee nañu loolu ñetti weeru vacances yëpp ci loolu la ñuy nekk ak xale yi ba ñetti weer a jeex ñu ñëwaat fii ànd see xale yi xam ngeen ne kon ñun suñ dund gépp xale yi la mu ngi noonu kon ngeen xam ne ngeen yokk seen confiance rek xam ne ñu qualifié ñoo fi nekk ñu am diplôme bi ñu xam li ñuy liggéey daal di nag euh, bañ ak làmmiñ ñoo dëkk parfois mu am lu xejam waaye dañuy jéggalu loolu ndax ay nit kese lañ ñun ay nit kese lañ ni ngeen yoree seen doom bi seen biir kër yenn incident yi di am ñuy daanu wala ñuy gaañu fii ñun aussi noonu la ñu mën a dalee ndax ay nit lañ matuñ waaye lépp lu si mën a am rek jàpp leen ne ñun suñu yéene mooy def ba mu baax ndax xale yi suñuy doom lañ kenn ku nekk ci ñun fii nii ba nga doom sa kër doog a ñëw jàngale sa doomi jàmbur kon doomi jàmbur boo yor da ko war a def ni sa doom te am naa yaakaar ne ñu ci loolu lépp lu ñagas si année bi ngi jéggalu loolu taxuñu woon a jóg ñu ngi jéggalu bu baax a baax jërë ngeen jëf buñ ca jógee nag dañuy jox beneen parent d'élève comme ni ma leen ko waxee tata Adama dëkk la parce que yàgg na fi loolu wax ko caatam fi la jaar am na caatam bi muy wax nii wax na dëgg suñu loxo la jaar ñun ñoo ko formé wax na dëgg seedal nañu loolu ñu ko ciy jaajëfal donc dañuy dem ci ki nga xam ne nag mooy monsieur dem parce que moom ci parents yi bees yi la bokk tata aada parent dëkk la wax naa ko waaye monsieur dem ci parents yi bees yi la bokk xëy na teew na gis na prestation yi am na loo xam ne mën nañu koo yokk waaye am na loo xam ne xëy na ñun mën nañu ko koo yokk ñu ngi sàkku sa teewaay fii monsieur dem nga jël micro bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidna muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ñu ngi sant yàlla bu baax ci jotaay bi nga xam ne sedd na xol doy na rek ñi ne daara ji mi ngi tudd Cheikh Mouhamadou Nazir bi ma toogee rek sama xel dem ne xale soo ko dugalee ci daara ji ñu wax Cheikh Mouhamadou Nazir ëllëg moom mu dugal la ci daara joo xam ne mooy muhammadul basiir maanaam xale nasir mooy artu xale soo ko artuwut yaroo ko ëllëg nga bugg ko dugal ci basiir ma du ko bégal di ko def lu ko neex bàyyi ko ci ko neex ëllëg nasir la la yóbbu xupp kaay dem seeti ko ma nga tribunal ma nga ca kër ga damm na ci mbedd mi danaan xeex waaye soo ko jëlee nga dugal ko ci nasir xupp ko xañ ko ay àqam jàngal ko diineem ëllëg ci basiir la lay dugal lu la bégloo rek la la gis yaay kaay dem màkka kër gaa ngi nii kaay faju kaay def nangam foofu rek la la yóbbu kon sant yàlla bu baax bu ñu yàlla mayee ñu am ay doom mu nekk fii ci daara Cheikh Mouhamadul Nazir mu nekk daara ju am cosaan joo xam ne lu ñaan samp ak ñaan la te képp ku fi jàng tamit dana am barke ndax gis neen ko ci ñëpp ñu fi jénnee kon ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoo méngoo xale yi ndax benn xale rek tey sa doom boo bëggoon a moom ci kër gi dana la lëjal lëjal boo xam ne léegi ñii nag nga xam ne ñoo dajale xale yi yëpp nekk ñoom ci waxtu yëpp dëgg am ngeen gërëmaande ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal yàlla bu baax man de gis naa résultat bu baax ci sama doom damaa ànd ak moom di dox ma gis mag moo xam ne mën na maa jur wala mat na ma maam mu li noppi sama doom ji ne ko waxal alhamdulilah loolu keroog dama ne man war naa yokk fay waaw loolu sant yàlla bu wéy mi ngi noonu mag mu am quatre-vingt-dix ans xamut sax bu tisóolee lu muy wax xale bu am ñaayaat gàgganti ko loolu sant yàlla la kon nag maa ngi ñaax ñëpp nañ indi suñ doom yi te maa ngi ndokkeel parents yi nga xam ne bàyyi nañ seen itte yëpp ñëw ci lii dafa am solo lii day tax xale bi xam ne lim nekk bëgg nga ko lim nekk lu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadis boo xam ne boom xam-xam yi jénnee ci ay ay atte yu bëri mooy xale bu amee woon cokku cokku bi jénn àdduna yonent bi dem di ko laaj yaa aba umay maa faala nuay loolu boom xam-xam yi liñ ci jénnee ci ay atte kenn xamul nu mu toll te loolu mooy jox gëdd xale te xale soo ko yaree fii nii ëllëg dana la jëriñ ndax lii mooy fondement suñu sëriñ bi ne dañ jàngal daf ñu doon fondement soxlawut kaw ak peinture dëgër la soxla xale yii ay fondement leen soxlawuñ neexal soxlawuñ yëre yu rafet nañ leen dëgëral ci diine nañ leen yar ci diine su ëllëgee ñu mën cee teg ay étage yi étage kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm jàngalekat yi di gërëm parents yi nga xam ne ñu ngi teew di ñaanal xale yi ëllëg bés ñëw ñu bokk ci ñi nga xam ne jooy yi lislaam di jooy ñoom ñoo koy far jooy bi nga xam ne Sénégal a nga koy jooy dégg nga de Afrique a nga koy jooy xale yi bokk ci ñi nga xam ne ñooy fomp rongoñ yooyu ñooy taxawal diina ji ñooy taxawal société bi yal na ko yàlla def ñun ñëpp ñu fekkee ko wa ma dalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullah aousubillahi min ashaitan rajim a rahmani rahim alhamdulilahi rabil Euh, maa ngi nuyu sama kilifa yi teew fii oustaz Ibrahim Ndiaye oustaz Nazir Niang ak euh, waa idaara bi yëpp maa ngi leen nuyu. di nuyu itam parents d'élèves yi nga xamante ne nii depuis anne scolaire bi commencé ba léegi ñun ñoo nekk te boobu ba léegi itam wax dëgg yàlla teraanga ak lu baax rek ci lañ seq ñun ak ñoom. di gërëm bu baax itam jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi di jàppalante ak ñun am na ci ñoo xam ne def nañ fi fukki at am na ci ñoo xam ne def nañ fi juróomi at gën a néew def nañ fi ñetti at kon ñoom itam ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di wax ne tey xëy na discours du am ndax feetu xale yi la moo tax wax ji jarut muy bëri di seedeel rek euh, sunu kilifa yi teew muy waa idaara bi ne parents d'élèves yi ñu seq xale yi ay parents d'élèves yu gore lañ ay parents d'élèves yoo xamante ne nii ñu bëgg école bi lañ amut lenn lu ñu leen di oo loo xam ne luy jëmale kanam école bi lañ ñu tànqam luñu waaye lépp lu ñu leen wax ne lii pour école bi la pour xale yi la dañuy bàyyi li ñuy def yépp ñëw taxawu ci liggéey boobu ba nga xam ne ni dafay jaar ci yoon balaa may continuer wax ji damay présenter ñi nga xam ne ñoom laa bokk ak liggéey bi muy personnel école bi euh, damay oo tàkkoo sàll mu ñëw euh, moom moo nekk moyen section tàkkoo Abdoulaye Balla tudd moom daanaka def na ak ñun fukki at ci école bi boobu ba léegi yore na ay classes yu wute moo xam petite la moo xam moyenne la moo xam grande la boole ci engagement bu mat sëkk ci liggéey bi euh, ñu oo madame Yàdd moom itam mi nga xamante ne ni moom moo yore petite section bi moom tamit def na fi lu jege ñeent jëm juróomi moom itam moo yore petite section bi nekk gis ngeen prestation yi nga xam ne xale yi def nañ ko. di o itam euh, Anta Sène ba léegi di o euh, Aminata euh, Diallo mi nga xam ne moo yore cetu école bi ak cetu xale yi moom itam depuis ñu commencé ba léegi ñun nag moom ñoo nekk Aminata boo mu nee ñëw moo gën de di o itam Seyda Khadijatu maane moom yàlla dogal na ren la fi ñëw nekk bokkee ci jàngee ci école bi ba pare yàlla dogal mu fekk ñu ci école bi waaye itam rëccuwuñu li taxoon mu ñëw ndax wax dëgg yàlla engagement ak jàmbarte gu mat sëkk la wone ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def euh, ki ci topp nii muy Anta Sène moom itam yàgg naa liggéeyak ñun daanaka ëpp na juróom-ñetti at wala juróom-ñeent euh, ci domaine école bi waaye ci domaine yar xale tamit ci beneen anam moo xam colonie de vacances la wala leneen moom tamit jàmbaar lool ci liggéey bi ndax gis ngeen grande section seen prestation yi lépp lu ñu doon def moo ko loon encadré moom kenn ak euh, gëstu yum ciy def pour mën a liggéey ak ñoom ci loolu moom itam ñuy seedere ku am engagement la ci liggéey bi nga xam ne nekk nañ ci di ko gërëm di ko jaajëfal bu baax a baax euh, Ndeye Fatou Diaga euh, moom moo nekk ci secrétariat bi moom itam monitrice de collectivité éducative la waaye moo nekk ci secrétariat bi di wàllu gérer wàllu gestion wu xaalis bi ñiy fay si yëpp parent yëpp xam nañ ko waaye ma seedeel leen ne moom yi wallaahi la day feebar di ma ko nëbbu ngir bëgg a ñëw école ku bëgg école bi la ku respecte liggéey bi la 7 heures du matin fii la koy fekk te balaa mu fiy jugee 14 heures wala 14 heures 30 fekk xale yëpp jeexul du ñibbi moom tamit wax dëgg yàlla jàmbaar la bu baax a baax ñu ngi koy gërëm di ko sant bisimilah mun ngaa dem toog. ki ci tegu mooy sama soxna parce que li yëpp bu yombee nag moom jàpp na ci ndax su ma yeewoo bëgg a teel a xëy mooy defar ndékki li su ma guddee ñëw jugee ecole it ba tey su ma fi yendoo moo may yónnee añ tey rek yónnee waat na ma añ kon ñu ngi koy gërëm madame wañ ngeen tàcc ko yéen tamit nag yéen tamit nag waaw ñu ngi koy ñu ngi koy gërëm bu baax moom tamit di ko jaajëfal parce que liggéey bi tamit xëy na jàpp na ci am na benn affaire bu ci def ba tax muy muy muy dox di gërëm bu baax waa idaara bi rawatina Cheikh Mouhamad Nazir mii nga xam ne ñun man ma moom lañ ma booleen parce que école bi man awma dem di wax ak ñoom oustaz Ibrahima Ndiaye wala ñoom sëñ munaa wala sëñ Mahi man nas ña laay waxat moom mooy wax ak ñoom kon moom tamit buñ liggéeyee fukki at ak benn chaque jour ñu ñuy félicité naan liggéey bi rafet na liggéey bi baax na man bu ma gërëmee man moom laay gërëm parce que moom tamit def na ci effort yu rëy jàppale nañu encouragé nañu défendre nañu wax dëgg yàlla ba tax ñu am courage mën a yegg si si situation bi kon moom ngi ñaan ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax. waaye moom i tamit ñi mu seq ak liggéey bi oustaz Ibrahima Ndiaye di nuyu suñ directeur bu bees bi muy suñ mën a xamina Ibrahim ñes di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko ndam ci liggéey bi nga xamante ne nii ci la nekk di gërëm parents d'élèves yëpp tey nee naa leen du du bési wax man daanaka yii moom damay bàyyi xale yi rek def seen i prestation waaye di gërëm tamit presse bi ñii nii euh, damaa bokk ak ñoom ci benn kuréel di liggéey ak ñoom muy waa CMF mooy convention des médias de la fayda mooy ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu xibaar te dëkk Medina bàyyi di yëngatu ci mbir faydu bi dama leen koo yëgal rek de engagé wu ma ci benn nit ñu ne kenn ku nekk ne ma dinaa ñëw danaa ko def direct moo tax parents yi jarul ngeen di xëccoo di filmer vidéo yi yëpp di ngeen ko am te bu leen neexee ngeen dugg léegi sax direct am ñu ngeen gis ñu ngi def direct kon jarut ngeen di sonn ci film yi di ngeen ko am su ngeen di yegg seen kër mën koo seetaan te di xale yi mu gën a leer ci seeni bët Kossy TV mu ngi fii euh, Bam TV mu ngi fii euh, Malben TV mu ngi fii Saloum TV mu ngi fii euh, yaakaar naa ñoom ñoo fi teew MMB mu ngi fi kon ñoom ñëpp ñu ngi fii di relier kii te image yi tamit ñeneen ñi daleen ko jël pour mu ngi koo jàllale kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax di kontaan ci yéen parents yi bu fekkee ne def nañ leen lu leen naqari ci année bi ak année yi ko weesu ñu ngi jéggalu di tuub bu fekkee nag juum ngeen yéen tamit tooñ ñu jéggal nañ leen di xam ne rek nit ngeen comme ñun ni ñuy juumee keneen ti mun naa juumee noonu lii la ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu fekkee ay ati at chaque année ñu am ay ndam yu gën a kawe yi maa ngi gërëm waat bu baax jàngalekat yi ak encadrement école bi yëpp di leen wax ne leen kullu amin wa antum bi xayrin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu anta voilà merci beaucoup suñu directeur El Hadji Omar Wagne moom tamit dañ koy wax mention spéciale di ko jaajëfal bu baax ndax nag peccam liir bu neexee ndey ja moo jàpp ca mbagg ya ñun lu ñu bëgg bëgg liggéey lu ñu bëgg bëgg nekk ak xale yi moom bu fekkonte ne ñu liggéey bi wala daf ñu doon buntu xatal wala mu ñuy teg stress du yomb de man sama genre gi lekk leen sonal dañuy daw ñibbi wallaahi noonu la demee de waaye moom daf ñoo jàppale nag daf ñoo jàppale bu baax li mu wax ci madame Wagne bee dama koy seede lu ñu nekk mu nekk la ñu si ba ñu wàcc fet bi tey mu ngi nii talu dara ci ñun la ne ba tay tay tay tay moo si mujj ci ñun la ne mu ngi daw suñu bànneex di yombal liggéey bi ndax xam nga nit buy liggéey nga di ko encouragé di ko jox les moyens di ko jàppale dafay sawar moom dara manqué wul madame wañ mention spéciale ñu ngi lay jëfal sama yaay ji baax jooju mu ngi noonu bu ko defee nag euh, dañuy dem ci prestation bu mujj bi nga xam ne xale yi ñoo koy def xale yi grande section saa ko maa leen déggoon prestation maa leen ko diggoon li ma leen fi yëkk yëpp ba aaway di ma tëkku tey ngeen dégg ko waaw tey ngeen dégg ko tey kay ndax xale yi dañ koy confirmer léegi incha allah ngeen teewlu xale yi ñu def seen prestation bu mujj avant ñuy jébbal kàddu gi suñu kilifa gu mag gi mu daal di def euh, discours am balaa rek ñu daal di tàqali ko ci jàmm ak salaam. maaleykum salaam. Maguette. Zeynabou. Yacine Sané Pape Gora na ngeen def ñoom fii waaye sant nañ de waaye ana laaxi laaxi jeex na ah dafa jeex xaama jaal si waa jàlla kii ni ma ko bañee ni may def. Ah, lum la def. defuma daara nag. damaa neexul ne dafa yëg boppam. pourtant ku baax la nag. baaxu benn yoon ak tiseen bu bon. pourtant sanse na de. sante sante wut benn yoon tisi bu yomb bi métti trois cent dong la ja ak daala mi bon. pourtant daal li rafet na de. rafet rafet wut benn yoon daal di si noyyi mooy dagg mille francs dong lay ay màgget màgget daal ja. jaaxal nga ma. ah lu ma la jaaxalee dëgg doomu laa wax nag. waaw. wax ma yooyu yëpp sax waaye xanaa gisoo leen temps yi si. lu fa xew. xanaa yéeféer jàpp jullit teel reelet ah man sax. gis nga wax. yow ak ñooñu yéen may laaj kay lu tax nga ma ma ko waxati de. yaa si ndaw upp na de. may laaj kay lu tax ma wax la loolu. tax nga wax ma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne al muslimun huwa man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi dëgg la tekkil ma ko bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne julli dëgg mooy ku julli di yëpp mucc sa ak sa loxo ndax yow màggat julli ñi ay sabut ne sa waaw déedéet ndax yow màggat ku romb nga jaw ko koo jàkkaaroo nga xas ko bu mu ràpp moo kenn jaam te moo kenn salaam ñooñu tamit ngay wax jullit ñi tiin seen loxo ndax fu ñu toll ñu ngi rey jullit ñi ah yaasin sa xarit maam sala toro man kay yaasin damaa doy waale maa li man maa man kay li may def masuma xam ne lii la ko lislaam bañee xanaa xamoo diin lislaam diine bu ma la ndax yàlla suñ borom du tooñ te bëggul kuy tooñ bés ni ki tey nag bàyyi naa loo jullit sama làmmiñ bi sama làmmiñ bi jàmm dong laa si wax te sama loxo bi jaamu dong laa si da te yow yaa si nag man lay sant la gërëm ndax li nga def ni jëfal si jamono bi ñu toll néew na nga gis kuy ànd nit te ko wax dëgg te yow ma danga maa wax dëgg moo tax nag man lay ñaan nga yàlla yal na yàlla fay te sama mbokk jullit nag ngeen bàyyi xel baax a baax nañ mooti jooju ni si si làmmiñ suñu làmmiñ gi ñu sàmm wax Yonent bi sallallahu alayhi wa xale yi def nañ lépp yaakaar naa ne kontaan ngeen ah neuf mois yi nekk ak ñoom góor góorlu nañ taqale nañ. buñ ci jógee rek dañuy jox uh, suñu kenn ci suñu kilifa yi muy oustaz Nas Niang wax dëgg yàlla El Hadj Omar Wañ wax na ko sànq uh, ku ñu jàppale la moom tamit ku ñu jàppale la ndax ñun bu ñu jaaxlee suñu directeur la ñuy dem uh, comme buntu waaye moom it bu jaaxlee day ñëw si. Ah, bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammadin seydil awalina wal axirin gannaaw sant yàlla julli ci yoonu salaa salaam ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak jëmmam suñ kàddu du ci bari lu du kàddu ndokkale ñu ngi ndokkal ah, mboolem ñu fi teew ci njiital suñ kilifa di Cheikh Ibrahim Mudira Dirasaat di ndokkal tim alaaji Omar Wañ ak mboolem ñu koy jàppale di ndokkeel waajur yi di ndokkeel élèves yi di ndokkeel parents d'élèves bi Aliou Arazimi li tax ma jël kàddu cër bi nga xam ne tey am nga ko ci bi xañ na xamoo lu tax waan duñ wax guléet ngir sa waajur wu baax wi suñ maam Cheikh Hassan Deme mi nga xam ne bàyyi moom la dugaloon fii xalwa quarante et un jours pour mu wax ko école bi ni demee kon ñu ngi lay bégal ne cër bii loo war a moom la say mag tim jaar fi jàng fi mooy Mouhamadul Habib ak Abdoul Baqi ak Cheikh Hassan ak Aliou Cissé bi nga xam ne tey mi ngi nekk euh, fële euh, ambassadeur Amman kon cër bii tey yéen waa Kër Hassan lu ngeen war a yelloo la maam benn cadre bu may dénk waajur yi rek may leen ma tuuti yéen waajur yi bëgguma wax wante kàddu bi dama leen koy laay biir tënk sama kàddu bàyyi suma kilifa moo wax waruma wax sax wante yenn waajur yi dafa am benn xissa pour ma tënk li président wax muy Ali Harazimi dafa am waajur bu am benn doom doom ji ne dafa lëj trop yàlla nattu ko ci benn weñ bu muy foyee buñ jëlee weñ bi rek xale bi jooy bu ñu jëlee weñ bi rek xale bi jooy ñu dem bu yàggee ñu maar gis na xale bi wàcceeku weñ bi daal mooy solution bi bàyyi ko ci ñu wàcceeku ko yàlla def yaay ji génn dem marché bim mu yàlla def xale bi gaañu ci bët xale bi màgg dem ba war a am borom kër dëkk bi nag képp koo xam ne war nga am borom euh, jabar rek ñu la demal ci doomi diw ngir rafetaay bi mu rafet yàlla def ku dem rek gis bët bi rek delluwaat gannaaw yàlla def nag loolu naqari xale bi xale bi wax yaayam na ko yaay nag ma wax lan mu xew sama bët bii lan moo ma ko def yaayam na du ko wax mu na ko dama ko wax yaayam ne ko bi nga nekkee xale yàlla def lan dootoo nga yore benn weñ weñ boobu nga doon fee bu ko jëlee rek nga jooy ñu sonn ci loolu ñu dem yàgg gis ne bàyyi la weñ bi mooy solution biñ la bàyyi weñ bi nga gaañ sa bopp loolu moo ko mu ne ko yaay tàgg bàyyi moom ma jooy tey nag maa ngi jooy kon soo ma bàyyoon kon tey lii du daal maxal shaayir bi li ma bëgg a wax mooy yéen xale yaay yi dugal leen yi bi ñu war a jàng ngeen jàng loo leen war a def ci ndaw ngeen def loo leen ko su boobaa du jooy lii laa bëgg wax kon oustaz xale yu baax noonu bisimilah. asalaamaaleykum mi maa ngi leen di nuyu. nuyoo lislaam mooy asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu di yëkkati kàddu yi ci turu cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim al xalifa al am lil fayda tijaniya cheikhul mahad ci turu cheikh Mouhamad Munhamina cheikh Ibrahim Niass al mudirul am li maad Abdullah Niass ci turu direction bi yëpp di dalee ko ci xadaana bi rawda bi ba ci sanawiya ci turu sëriñ bi waaye na ci particulièrement ci turu cheikh mouhamad mulhamid na ñëw nañ fii ci rawda bi fekk fii alhaaji omar wañ mu liggéey liggéey bu rafet bi comme ni ko Nasiru waxee sànq surveillant général ak li nga xam ne tamit gis nañ ko ci liggéey bi yokkute bi mu am ak rafetaay bi yàlla na yàlla barkeel ak ñi nga xam ne ñi ngi lay jàppale ñoom ñëpp xale yi seen démonstration bi feeñ na ci sa liggéey feeñ na ci seen liggéey ñun ay jullit lañ ci réewum jullit lañ nekk Cheikh Ibrahim bi mu sancee école bi njëkk fee ñëw 1972 fii la Baye njëkk joxe prix ci tribune bi nekk def ko ci terrain bi gannaaw ga ca tribune bu mag ba rek la koy defee ci Medina waaye nag lam ñu waxoon ci jamono boobu nee na kat na ngeen jàng arab mais pour lislaam moo tax waaye na ngeen jàng tubaab pour àdduna ngeen xam ci ndax alquran dafa ne wabtaqi fii ma aataka allahu dar al axira wala tansa nasibaka min addunia na nga boole yépp loolu nag mu toftal ca ne këpp koo xam ne kii jàng nga ci école bi yàlla dana def barke te rawda bi ci école bi la bokk banqaas la ci école bi kon ku fi jàng rek xale yi li ñu wax sànq dañoo gàggante ay mag yu bari gàggante nañ mag di xale yi ndaw yi li ñu wax sànq ci rôle bi nga xam ne wax nañ ko kilifa diine yi ñoom say xamuñ li xew li xew ndax dem nañu benn congrès ci Mauritanie am sénégalais boo xam ne bi doctorat am ci lu langue arabe ñu toog di waxtaan am na benn malien boo xam ne bi moom dam inspecteur arabe la malien bi ne ko senegal kilifa diine yi ñoo fa am kàddu sénégalais bi nga xam ne jege na pale bi jege na tubaab bi moom mu ne ko non non mu ne ko li ma la wax nii xam naa ko ndax man def naa Sénégal ñaar at waane ba mu demee ba wax ak moom lafa mujj lañ mujj a wax mooy dafa nangu ne Sénégal taxkumuha zawaya zawaya yi mooy kilifa diina yi su tàngee ba tàng rek ñu ne ana kilifa diina yi kon yàlla na war nañu jar nañ leen bàyyi xel noonu lislaam yi nag ngeen ba baal ma noonu lislaam yi nag seen xeex yépp ci ñaari étape lañ ko jël ñii xeex lislaam fi ñuy daje di xeex lislaam mooy ci rawda yii ak ci ci secondaire bi sanawiya ndax diggante ibtidaaiya ak idaadiya foofu amuñ fa soxla mais fi ñu am soxla mooy xadaana ak sanawiya ci xale yu ndaw yi ak ba ñu dem ba mu amee baccalauréat ba ñu am baccalauréat bu fekkee ne nag suñu doom yi dañ leen jëmbatal tarbiya islaamiya tarbiya diiniya boo xam ne bi dafa xóot ba li xale yi wax wax nañ ko ci arab wax tekk nañ ko elf kon ñoom dund nañ ko kon loolu dafay nekk yar boo xam dafay nekk lu sax ci seen biir njàngam tubaab mii aha war na am ndax boo jàngul tubaab jàngoo boo jàngul tubaab loo mën a am ci ay diplôme dañ naan la da ngaa handicapé nag boo jàngee tubaab jàng li nga war a jàng bu soobee yàlla fu ñuy seddoo danga bokk kenn du la wax ne da nga te réewum Sénégal mii du ko wax ci suuf de incha doomu xadaana yi ak doomu daara yi ñooy mujje réew mi incha allah ndax nit ñi dañoo soxla seen bopp ci loolu kon nag ñu ngi ñaan parents d'élèves yi ne yéen de fi ngeen indi seen doom ah rëccuwu leen ko de yéen a gisal seen bët yéen a déggal seen seen làmmiñ ndax loolu nag dafa bokk ci am sa doom rek dugal ko ci xadaanatu Cheikh Nazir rek dafa bokk ci nangu wuyu oote Cheikh Ibrahim dafay wuyu Cheikh woote Cheikh Ibrahima te ku ko ku woo nga wuyu ju rek dana la jox loo yóbbaale kon dana ngeen am lu ngeen yóbbal bu baax a baax am na ko fi wax sànq ne ab sëtam xaw ma caatam fi la doon jàngee waane waane am na leneen loo xam ne lii danaa leen ko wax euh, franco arabe bi nga xam ne moom ba ko bàyyi defee boobu 1970 booba kenn xalaatul franco arabe ña ci jàngee woon ba léegi ay fonctionnaire lañ am na ci koo xam ne ki Gambien la ma nga NASA ci Amérique te yaakaar naa ne xawma de sénégalais boo xam ne bii àgg na ci xam-xam ci place boo xam ne bii àgg na bañ boole ko ca NASA waaye nag ka ka ka nekk africain boo xam ne bii dugg na ba foofa ci école bi la tàmbalee jàng kon barken fi ñu ngi gërëm bu baax a baax yàlla na yàlla desal barke boobu li ñu wax Thierno Assane bi nga xamee ne def na xalwatu yi ba dem ci Cheikh Ibrahima ne ko la mu ko waxoon mooy gis naa ay naar yu weex avion bi wàcc na. digg école bi ñaar yu weexe ñu ngi wàcc 1975 Cheikh Ibrahima dem Égypte daal di fa indi naar yi muy juróomi professeur yoo xam ne yi yu ko ma sëkk ñoo xam ne ñu ay borom xam-xam yun tànnee lañ ca Azhar bàyyi tuddee leen ay jant ñu nekk fi liggéey fi liggéey boo xam ne bi liggéey bu rëy la ba tax na képp koo xam ne kii bépp doomu aadama boo xam ne bi ci Afrique ci Sénégal am nga ay professeurs yi égyptiens yàlla ak Cheikh Ibrahima moo tax yàlla nuñ ko yàlla fayal kon maa ngi gërëm bu baax Omar di gërëm parents d'élèves yi di leen wax ne nii la kenn ku nekk nag war ngaa bàyyi sa xel ràññee fa ngay dugal sa doom kenn ku nekk war ngaa xam fa ngay dugal sa doom ndax euh, mbir mi dafa bari paccaxoo la benn waay waxoon ca dakaar rek benn kilifa gu ndaw a ndaw ndax ku ndaw laa ko mën a tuddee ma yore microcentral dend ak Cheikh Nazir mu ne ma Ibrahima ma ne ko mu ne ma mu ne damaa bëgg nga jimbo ma ma ne ko jimbo ma ne ko ma la jimbo do boo bëggee jimbo demal marché Thiaroye man nekkuma fi di jimboonte kenn loolu laa amoon li may wax di gërëm di sant. wasalaamaaleykum jimbo daal mooy tagg la daal di la tagg ndax loolu da nga ciy gis sa bopp te gis sa bopp comme ni ko Cheikh Maye yëg sa bopp moo ko gis sa bopp bakkan la yëg sa bopp mooy maanaa yàlla na ko yàlla may wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. parents yëpp ñu toog ñu bañ a buuxante xale yi dugg ci classe yi ñu jox leen seen album yi ak seen goûter bi waaw waaw non damay wax li war a des ci programme bi bu kenn jóg parent yi ñu xaar. invité yi nag ñu defee xale yi bu buñ wéyee seen wéyu tàggatoo bi ba pare bu leen neexee euh, ñu def ñaan bu ndaw ngeen yeewee ko waaye parents yi ñu toog xaar su ko defee xale yi dugg ci classe yi jël seen album yi ak seen goûter bi suñ paree génn ngeen jël leen ñu dem balaa timis sa jot jërëjëf. defal leen ay prestation bal leen ma de dama waaw Pape Mour noo def. mu ngi noonu defal leen ay prestation yi am nañ yaakaar ne li ngeen gis doy na leen ba tax na bu déwénee ñi war a delsi dinañ delsi waaye ñu duggagul dinañ dugg ah Bachir ñaa bu déwénee nga indil ma sofi Sophie Dior Bachir déwén jàmm nga indil ma sofi joor incha allahu rabbi mu ngi noonu kon li ñuy def mooy wayal leen suñu way bu mujj ndax nag ñoo fi nuyoo woon waaye bu jeexee rek jeex na waaye bu neexee ba dàq lool nag day des ci xol yi te lu des ci rek des na ci xol macha allah ñu ngi leen di jaajëfal encore une fois ayca tàggoog jàmm xaale yi dem si kon jaare ngeen jëf ba beneen yoon incha allah ci yeneen prestation ak yeneen i xale di leen wax rek. mu ngi noonu kon oustaz mu joxe dog voilà ñu ne mu joxe dog ñaareel moom loolu moom sañu ma ko dama ko ragal waaye na ñi amagul jëkkër yàlla na leen yàlla may jëkkër yàlla na yàlla barke seen liggéey. Euh, kon ni ku nekk na jàng Fatiha ak salaatul Fatih ñu yéene ci aajo yi. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinaa siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin yaa raafi'u yaa mu'izzu yaa zaahiru yaa hayyu yaa qayyuum allahumma innaa nas'aluka bi haqaa'iqi asmaa'i saatika wa sifaatika al-'aliyya an tarfa'a lanaa makaanan 'aaliyan ma'a al-'izzati wa zuhuri taammi alaa ahli zamaanina waftax lana ya rabba abwaaba najaa wa taqaddum waaye zikrana wa xeyruna kulli ma al aafiyati daaimati warsuqna dawaama sixati wal aafiyati wa tul amat bi xurmati allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin